barke ñap ka te simalan di mama di manun bay modou moustapha senghor ay ca koy laanu ne arbitre fa la combat va diggante jamme da musa kaling Musa kaling mo ñoon gannaaw jamme da kanjay mom la jàkkaarlool fi lay xewé ci simal jamme jëli na way Musa dal di dina koy Korja harogi ma Sulayna harogi le Jamme Daga Njaay moo nge ñuul li Hey Moussa jàllale na ko Moussa Jamme Daga Njaay Moussa Moussa Jamme Daga Njaay ko Isa war na ko domb pelanti pelanti wu lamb da lay yëkkati wee Moussa Moussa Kaling Jammeh Moussa Kaling Jammeh Ndaka la boo waa fim la yow Moussa Kaling pelanti bii boo ko ratee waa waa la Moussa Kaling Jammé Ndaka Ndiaye Moussa wër na ko ndomb mu ngay liggéey sottiwul Moussa Jammé eh, jeexagul mbaa du ca génn jàmme mbaa dang ca génn yëkkati sottiwul mu kal ci kanam sottiwul yëkkati ba ci kaw dala sut lees dala gën a gudd roloos Moussa Kaling Moussa daan na